réew ci loolu moo tax mënuñu exporter ñu jaay ci biti suñu lépp a ngi jógee ci biti bu nit ñi sëqatee ci biti ñun ñu soj loolu moo tax fu ñu jëm xam nañ ko ne la ñeneen ñu def ba développé dinañ def lu ko raw ba def ba romb leen ñun foofu lañ jëm kon lii nag lii ñu boole koog nag continuer di gëstu ndax suñu tekk tekkaaral bi bu ñu jàpp ni faiblesse la ñoo ngi gëstu semaine bi rek lancé nañu ay audit plus de 60 structures yu audité yi nga xam ne jotoon nañ ko def te mu nekk ci cour des comptes nekk ci IG e, nekk ci leen ak leen dañ ko génne teg ko ci table justice mais justice bu ñu defar bu ñu bu ñu bale ba noppi ndax xam nañ li fi xewoon ci justice bi bu ñu ko balee ba mu set jël les vrais magistrats nga xam ne jug nañu dinañu appliquer loi ko yoon waxee bu ñu leen ba pare la ñu war a def ko def ci ñi luubaloon alalu réew mi lépp ko teg ci yow xam nga dama leen di wax nii man mii looy daj nañ ko pour ma bañ lu nekk fañ ko jaarale woon ñoom ma wax benn ministre ne rapport épinglé na ko wax na léegi kii ñu ne loolu amul dem ministère des finance daa di nëbb rapport bi suñ ma convoqué tribunal daa di baare yoon bi dóor toj samay oto pour ma bañ a egg tribunal ñu corrompre ay magistrats cour d'appel ba cour suprême ñu ñëw génne seen décision conseil constitutionnel président Badio wër moom dem lu kenn musul gis ne moom mooy dem décision de justice toogul ñu andi ko ko pour ko bañ a nekk candidat waaye yàlla ay mbiram tey rapport bi doon nëbb mu nga sama kaw mu nga sama kaw table rapport bi mu nga sama kaw table moo tax yàlla rek ko mën te nag te ko jox justice bu def li ñu war a def ndax seen fen boobu ñu doon fen tax na ay nit dee tax lay di dem ci kaso tax lay di daañ ko te bañ koy def ñoom ñëpp xam nañu dañuy fen ngeen jégal ma ci kàddu bi kon ma dellu si leneen projet bi yéen yéen koy porté naka ngeen koy porté bu leen nangu ñu dugal leen ci debaa yoo xam ne amul solo bu bu leen ku jóg wax rek ngeen ne da ngeen koy tontu suñu mag Alioune Tine wax na xalaatam est-ce que dafa saaga est-ce que dafa xaste man d'accord ma xalaatam waaye loolu mooy rôlam moom jarul xuloo jarul xeex loolu mooy rôlam te démb ñu ko doon def ñëw toog suñu wet naan li ñuy def ci yoon néewoon na ci baatu société civile bi ñu ko doon wax di ñu fekk suñu kër di ànd ak ñun di solidarité moom ak keneen ak keneen Seydi Gassama Birahim Seck ci jamono jooju ñu ci bëri ci ñoom ñi nga woon fale toog ci ñeneen ñi kon tey bu waxee xalaatam buñ ci d'accordul tam nañu ne d'accorduñ ci rek andi ko teg ci teg ko ci xam-xam waaye yooxu beeg xaste beeg ñun sant ñu ko kenn lay li ñuy xaar ci yéen ci mu toll nii mooy set formidable force qui est en vous vous la jeunesse du Sénégal toute l'Afrique vous envie ay héros ngeen yéen jeunesse du Sénégal le monde entier vous envie su ngeen xamoon damay tey suba ba ngoon jot di recevoir ay nit yoo xam ne dégg naa rek danañ waruma recevoir ay ambassadeur lan mooy ambassadeur lan mooy ambassadeur est-ce que xam ngeen ni dans un pays normal ñun suñu demoon ba egg suñu bëgg a jëm premier ministre du recevoir ambassadeur du ñu samay nawle ambassadeur Sénégal bu nekk France du gis premier ministre France ministre sax ministre affaires étrangères sax du ko gis benn conseiller Serigne Ali Élysée la mën a gis wax ak moom su ngeen seetloo bi ma toogee ba léegi euh, page Facebook wala site primature mosu leen gis ñu affiché fa photo ambassadeur mooy recevoir parce que man pour man lu ordinaire la recevoir ay ambassadeur te ku ma ci recevoir yi sama kilifa son excellence moom moo naan ma recevoiral ma ambassadeur tel ma recevoir waaye li ma bëgg a wax foofu mooy ambassadeur yi ñuy recevoir homme d'affaires yi jóge fu ne damay xëy suba ba koon jot bis bu ne ay nit jël seen jet privé ñëw spécialement pour dajeeg ñun wax ak ñun dellu waaye li ñuy wax mooy Sénégal vous ne savez pas ce que vous avez réalisé vous êtes pour le monde pas seulement pour l'Afrique et vous n'avez pas le droit d'échouer amuñu parce que bu ñu échoué lii kase démb dama recevoir benn homme d'affaires bu mag a mag mu jógee fu sori jël jet privé bi ñëw ne daf may gis parce que dafa bëgg a ay investissement ak yeneen ak yeneen mu ñëw ñu toog mu wax ma benn phrase bu am solo mu ne ma est xam ngeen ni ce que vous avez réalisé est plus fort pour l'Afrique que la libération de Nelson Mandela lii la ma ko ñun dañu war a xam li ñu yor ñii nga xam ne rek seen gémmiñ ñi ngi nàcc te duñu wax jàmm bu leen leen déglu bu leen leen topp xam ngeen fan la leen président Diomaye soxle xam ngeen fan laa leen soxlee mooy une formidable mobilisation citoyenne ba doole kooku ñu amoon ba mun a jàkkaarloog état parce que toon nañu ba jàkkaarloog état parce que ñu doon bañ projet bi egsi fii cette formidable énergie qui a porté le projet, qui a protégé les porteurs du projet. Il faut désormais qu'on la transforme en une énergie de construction de notre développement. C'est ça que nous attendons. bu leen topp seeni wax ndax ñun xam nañ ni attanuñ ñoom opposition keroog bu ñu demee commissariat dégg naa policiers yi grenade benn grenade lañ jël xaaj ko ñeent jël ci benn sànni leen rek ñoom ñëpp a sëkk kon affaire yi moom bu la gars yi gars yi gars yi jàmbaar ngeen de waaw ngeen maram booy jàmbaar ngeen yéen a mën yéen a ëpp doole kon soxla nañu seen énergie pour la transformation de ce pays ñëpp ñu mënuñoo nekk ñëpp mu a xëy rek c'est-à-dire fonction publique Sénégal ba mu nekk boo moytuwul ñi fi nekk ñoo leen ëpp kon ñëpp mënuñoo xëy nekk général ñëpp mënuñoo xëy nekk ministre mais loolu taxuloon ñuy xeex ngeen baal ma léeg-léeg ñu ne ma ah am na ñuy organiser wu de nee nañ wala seen famille sax dañ leen di xas ne leen nee ne fi newoon di xeex te fàtte nañ leen déedéet déedéet ba ñuy jóg di xeeti kenn ci ñun amuloon yaqin ni dañu jël nguur nañ jël pouvoir kenn kon dañoo xeexoon ngir des principes des valeurs te ñun ñooy àndoon xeex ngir des principes et des valeurs tey yàlla joxe réew mi ñun ñooy ànd liggéey liggéeyal réew mi waaye kenn ku nekk ak fi ko mën a liggéeyee kenn ku nekk ak fi nga ko mën a liggéeyee tey la tax sénégalais yëpp ñeneen ñi war nañu moytu mu dal ñu kon saa suñuy tànn dinañu seet ndax charte yi mat na parce que bëgg nañ kenn ku ne nga dénki nga bañ ñoo gàcceel ndax moo xalaan ko de ñu fi dénk mënoo dañ lay wàcc waaye kuñ fi dénk nga jël kaso nga jël kon bu ñuy dénkee bëgg nañ leer ni lañ lay dénk mën nga ko attan nga ko te am na njub pour yor ko yorin bu gën a rafet ñi ñuy dénkit dañuy soxla ay collaborateur mais ci ñi ci ñi fi nekk lañu koy jëriñe waaye li ëpp solo mooy projet de développement bi dafa am un volet citoyen sànq bi may ñëw dama waxtaan ak président Diomaye mu ne ma fàttalil ma gars yi projet citoyen bi def nañu une première édition nettoyée ñëpp jël nañu macha allah waaye dañ naan Sénégal départ la amul arrivé weer yi di ñëw bu doon fukk a génnoon bii dañoo bëgg junni génn il faut ñu inscrire suñu action dans la constance et dans la durée ak lu mu yàgg yàgg yàgg gis naa ay image yoo xam ne am naa ni fii ci biir ñu doon dugg ci biir caniveau yi di génne pneu yi loolu am lu ko mën a lu ko mën a fay ci projet bi bu leen jàpp ni fii am na kuy nguur de ma ma wax lañ ni président Bassirou Diomaye bu nelawee par bés ñetti waxtu la nelaw ci bés bi man saa suma ma xëyee yàgg naa leen wax ni politique amul lu ma ciy xaar salaire sax bëgguma ko ci lu ma musaab ci salaire delloo naa ko askan bi te noonu laa koy defaatee nii soxlawul ci dara lay defar réew mi moo ñu intéressé kon bu ma duggee ci suñu oto motaar jiitu ñaari oto ne ci benn ne kanam benn ci man su xool ci vitrine bi maa ngi xool senegal yi maa ngi naan lan laay layoog lii te kanamu yàlla nag waxuma fii lan laay layoog lii kon nañu xam ni kenn ku ne ci ñun am na lu ne ci moom loo xam ne dañ koo donn wala ñu cee mooñaale ci ni ñu doon doxalee fii nañu fexe ba loolu ñu génne ko ci ñun nañ ko génne ci nañu dellu si yéen ñu nekkoon bi ñu ne opposition bi nit ñi di génne di xeex amul kenn ku ñu jox poste wala dërëm wala ñu dig la waaye dañoo gëmoon ni lii mooy soppi Sénégal est-ce que dinañ ñëw tey ba ñu dégg nit ñi di teggi seen tànk parce que joxuñu ma lii wala si wuñ ma wala woowuñu ma walla wala wala est-ce que ngeen ko def yéen. kon l'action citoyenne